8 mars di bés bi nu jagleel jigéen ñi ba waral ñu koy feete ci àdduna bi yépp ñoom jigéen ñi fare ci SAPCO Sénégal nag desuñu gannaaw benn yoon ndax amal nañu feet boobee ci anam bu mucc ayib waaye tamit ci anam bu méngook seen gëm-gëm yile jigéen jàpp ne lu góor mën jigéen war na ko mën fépp fu góor taxaw jigéen war na fa taxaw loolee lépp nag di firndeel njariñ li nga xam ne jigéen am na ko ci société bi rawatina ci lépp lu koy jëmale kanam gannaaw tem bu am solo bi nu tànn daal di koy waxtaane ni nu màggale bile bés tax na ñu gën leen a dolli ak cër ndax gëm gu nu gëm seen bopp jàpp ne bile bés dañ cee war a toog weccu ay xalaat bañ ko jàppee rekk mbiru folklore ndax bés bi njariñ li ëpp na loolu bile kër di ko Sénégal nag jigéen ya fa nekk xarabunu kilifa ya benn yoon ndax njort nanu ne mboolem cër bu nu yellool jox nanu leen ko ba mu mat sëkk waaye tamit terewul ñuy sàkku ci njiit la di Souleymane Ndiaye ngir mu gën a dolli ay yoxoom gën leen a jàppale ba fu ñu bëgg a yegg yépp ñu àgg fa ca noonee ca lanu tënke seeni kàddu tatagal mboolem ñi jàpp ci bile bés ba mu daal di antu rawatina seeni kilifa ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal bile kër di sab ko Sénégal ci taxawaay bu am solo bi ñu taxaw ci bés bi ba mu mucc ayib